Ce puits fait partie de ceux euh, qui étaient un peu attendus puisque euh, ça fait plusieurs mois qu'il a été lancé mais qu'il y a eu euh, quelques retards. On voit ici hein, les roches qui sont sorties de ce puits qui expliquent largement cela. autre chose qu'il faudra préciser, c'est que ce puits a été sorti carrément du village pour avoir plus de chances de trouver de l'eau agréable à la boisson, puisqu'ils ont un ou deux autres puits dans le village, mais ceux-là sont

waaw ndox bi moom mën nañ koo naan wax dëgg mën na naan moom wax dëgg yàlla jafe woon na moom wallaay jafe woon na ndax ginnaaw ñaaxar la ñu doon roote waaw wax dëgg sante nañ leen bu baax nag ndax bu ñu doon gontu rooti tak ay saret boo boo doxatee tuuti am ndox ah, wax dëgg yow sant moo ci nekk jërë ngeen jëf waay boo gisoon ñu indi fii teen bi fii mu xaw ñu sori mën nañ ko gas fu fo xamne jégué jégué won na waaye bu jégué rek té amul njëriñ lolu taw ñu soxla teen lu mu sori sori to amal ñu njëriñ lolu mo ñu gënal ah di leen girim di leen santa di leen jaajëfal ca ngeen jëf yal na leen yalla fay tiyaaba bi ngeen ci wut yal na len yalla jox tiyaaba bi ngeen bi ngeen ci wut luñ ci doon seentu gis gis nañ ko na ndox bi ni mu tolu wax deg mo ñu gënal li de mom yaatu nañ la ci ci bu baax ndax ñun amuñ woon ndox de dañ doon rocc ci biir dekk bi man nañu dem am ndox man nañu dem ñaka am ndox suñu toge nak ben ndox jege ñu fi sant ñeenti yalla bu baax l'objectif a été atteint. Ce, puits donne de l'eau qui est agréable euh, à la boisson et à la cuisine. Euh, donc, euh, machallah, remerciements et chapeau au groupe Babelwet qui a financé ce puits avec l'association Au Pain et Sourire. une série de puits qu'ils ont, qu'ils ont fait, qu'Allah les récompense et qui bénissent leur action qui leur permettent de faire euh, davantage, qui leur accordent une longue vie, une santé et tout ce qu'il y a de meilleur euh, dans cette vie. Alhamdulillah, nous transmettons donc ainsi les, remerciements de ces populations. Et puis, euh, Alhamdulillah, barakallahu